ci sunu téere boobu di muxtasaru fiqhu l asmaai l xusna bu alcheikh abdurazaq bun abdulmuhsin al badr xafidahum allahu jamian mu mel ni noo ngi woon ci alfattaax mu mel ni gisoon nanu li nga xam ni mooy tur woowu la muy tekki ak it yenn ci warab yi nga xam ni tur wi rot na ko ci alquran moo taxoon cheikh bi doon wax naan hada wa inna iman alabdi bi anna rabbahu subhanahu huwa alfattax يستوجب من العبد حسن توجه الى الله وحده بأن يفتح له بأن يفتح على قلبه بشرح بأن يفتح له أبواب الهداية وأبواب الرزق وأبواب الرحمة وأن يفتح على قلبه بشرح صدره للخير قال سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين قال القرطبي وهذا الفتح والشرح ليس له حد ليس له حد وقد أخذ كل مؤمن منه بحظ ففاز منه الأنبياء ففاز منه الأنبياء بالقسم الأعلى الأنبياء ثم من بعدهم الأولياء ثم العلماء ثم عوام المؤمنين ولم يخيب الله منه سوى الكافرين mu ne gëm bi nga xam ne nag jullit bi daf koy gëm tur wi ak lu tur wi làmboo ndax loola mooy jubluwaay bi mooy yoon wi benn mooy saxuk tur wi sax bi nga xam ni sax na ko ci alquran ak sunna ci ay adilla adillatu alquran ak teg ci dolli xam gi ngay xam li muy tekki maanaam nand gi nga koy nànd comprendre ko ba bu ko defee معنى بوبينغا خمني مملة تروي لامبو غناو بانغا غميني تروي سخنا ندخ تكتل يانجيني أدلة يانجيني مانغو معنى بي تروي لامبو لوليد جسنغا نغا غمكو جسنغا لولا لوي تابخيسة إيمان لا جسنغا كو كون غمبو بانغا يغمني برمبي سبحانه وتعالى موي الفتاح ki nga xam ni mooy àtte di teqatle diggante jaam yi ci dëgg ci nim ko soobe moom borom bi jàlla mooy xéewale ku ko soob moom borom bi jàlla wa ala ko soobe atteem dogalam luy wéy la baa ngoog amut lu ko mën a fànq mu ne loole <clears throat> bu ko jullit bi gëmee loola kon dafay waral ci jaam bi na muy jubloo ci boroomam day doon anam woo xam ni anam gu rafet lay doon waaw ni muy jublee ci boroomam day doon jublu gu rafet moo tax gis nga loolu fii borom téere bi daf la bëgg a won daf la bëgg a baaxe ci xéewal yi nga xam ni moo nekk ci yittewoo bunt bi muy asmaullahi alxusna yittewoo ko ci wattu tur yi mokkal ko waaye kazalika tamit fexe xam la ñuy tekki nandu ko gis nga ko ma ngoog fa muy yóbbu jàmbi fa mu koy yéegi maanaam da koy yóbbu ci mu am jubluwaay akuk dëgmal suubuwaay bu rafet jëm ci boroomam ci ne moom boroomam boobee di allah subhaanahu moom dong gis nga ca jublu mu tijjil ko bunt yi nga xam ni mooy bunti gindiku bunt bunti wërsëg bunti yërmande gis nga xoolal kon mucc gi ngay mucc ci dëgmal bi ngay dëgmal ci keneen ku dul borom bi jalla waala di yaakaar ci kooku mu tijjil la yi gindiku wala bunti wërsëg wala bunti yërmande xoolal ñaata nit ñooy dëgmal ci ku dul allah subhanahu wa taala ñi dem ci ay suuf ñi dem ci ay xeer ñi dem ci ay bant ñi dem ci ay bàmmeel ñi dem ci yeneen xeet ci xeeti mbindeef yi gis nga ak coono yañ cay daj gis nga pour di fa wuti lu tijji bunti wërsëg te fekk jamono boobu ña nga won gannaaw ña nga dummóoyu al moom mi nga xam ni moom képp mooy ki nga xam ni mooy tijji buntu wërsëg mooy tijji buntu gindiku mooy tijji buntu yërmande bangoo bu ko defee kon mu jubli ci boroomam mu tijjul ko bunt yi tijjil ko it xolam tijjil ko xolam ci yaatal dënnam mu dëgmal jëm ci mboolem xeeti yiw moo tax mu indi laaye joojee afaman sharaxa allahu sadrahu lil islaam fa huwa ala nuurin min rabbi gis nga laaye ji mu ne moo ndax dana yam ka nga xam ni borom bi jalla wa ala dafa yaatal dënnam dafa yaatal dënnam ci lislaam mu nangu ko nangu àtte ya nangu tegandaay ya mangoog tey di ko jëfe wommatu ca mangoog di ko jëfee ci xol bu yaatu ak xel mu dal di ko jëfe teg ko ci xam-xam gis nga ko moo tax mu ne fa huwa ala nuurin min rabbi nga ko kon xoolal tijj gi nga xam ni borom bi jàlla waala da ko tijjil jaamam bi xoolal lim ko tijjil yaatalal ko xolam yaatalal ko xolam mu dëgmal lislaam ak xol bu yaatu xel mu dal xol bu féex nangu jébbalu wommatu ci àtte yeeg yi loola kon ci xol bu yaatu mu tegu nag ci xam-xam bu wóor xam-xam bu leer xam-xam bu tegu ci ay firnde xam nga kooku bokkul ak kiy làmbatu ci misaal tey ki nekk ci néeg boo xam ni làmp bañ fa taal dafa leer nañ nga xam ni saa yu soxlaa jëm ci benn jumtukaay ci jumtukaay yi nekk ci néeg bi du am benn yoon jafe-jafe du am benn yoon gêne day jóg mën caa dem jël la mu soxla faj aajo ak ki nga xam ni moom dañ koo tëj ci néeg boo xam ni néeg bu lëndëm la ak néeg ba lu mu yaatu yaatu ak néeg lu mu yaatu yaatu moo tax boo defoon expérience bi di ko gis ma ak néeg ba lu mu yaatu yaatu waaye néeg ba dafa lëndëm nga xam ni moom bu jógee ngir soxla benn jumtuwaay ci biir néeg bi day am jafe-jafe pour mën caa àgg gis nga koku na muy nekk ci xat-xat donte barab bu mu nekk yaatu na gis nga xeetu xat-xat boobu muy nekk xeetu xat-xat boobu muy yëg gis nga ko xam-xam noonu la mel leer noonu la mel ma ngoog yaatal ak tijji bu borom bi jàlla waala di yaatal xolu jàmbi bi noonu lay mel jàmba day doon koo xamante ni nii sunu borom da koy defal tawfiqub diina mango da koy defal ak dëppatle dëppaleeg diina man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin lola mo am ci dënn gu yaatu gis nga am ci xam-xam bu leer am ci fiq bo xamanteni ni fiq bu jup xoc lay doon moo tax mu ne la moo ndax kooku dana yam ak kii nga xam ni moom xol ba xol bu wow la ñi nga xam ni seen xol dafa wow fa waylul lil qaasiyati qulubuhum an dikrillah ulaika fi dalalin mubin ña nga xam ni ñooy boroom xol ya nga xam ni xol yu tëju yu woow yàlla nga xam ni ñoom amuñu yaatuwuk xol amuñu péexum xol amuñu tijjikuwuk xol mango nga xam ni tey alquran bu dikkee waxyu bu dikkee sunna bu dikkee seen xol ya du ca nooye du ci am genn yëg-yëg day wow koŋ misaal ko ci ñaari xeeti suuf yi nga xam ni benn suuf si moom bu taw jotee bu ndox ma ñëwee gàncax saxee ca suuf sa dundaat ak suuf si nga xam ni moom lu mu taw taw taw taw gàncax du sax ndax suuf sa daa gis nga ko mënta génne gàncax mënta génne ñax mënta génne pepp mënta génne foyteef mënta génne benn xeetu meññeenteef ci beneen laaya mu ne faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى في السماء كذلك يجعل الله يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون من لا كيغا خامني سونو بروم جل وعلا دكو دبليك يون ويغا خامني موي طريق الهدايه يونو نيوب mu tijju xolam ca loolu yaatal xolam ca loola gis nga ko ma ngoog def xolam ja nangu yoonu njub googee am na ñoo xam ni seen xol mënta nangu yoonu njub boo nee tawxid dañuy lànk lu dul ne ñoom dañuy dem ci ay xërëm ak fétiche di bokkaale gis nga am na ñoo xam ni seen xol tëju na ci anam goo xamante ni nii leeruk tawxid duñ ko àttan lu lëndëm rek lëndëm lëndëmi bokkaale tilim tilimi bokkaale ma ngoog ci la ñuy yëge seen bopp gis nga ma seen xol tëju na ci leeru sunna njàngale yi sunna yi ñaanu sunna yi wérdu sunna yi askar sunna yi yooyu dañ cay tële ñoom daal ñu ngay yëgee seen bopp ci ay bidaa ay definu bidaa ay wérdu bidaa ay zikru bidaa ci lañuy ñuy seen mu ne kon kii nga xam ni sunu boroom yaatal na xolam ci tariqul hidaaya ci ak ka nga xam ni nag sunu boroom da ko namm réeral nga xam ni dëppalewu koog alhidaaya mu def xolam mu doon loo xam ni lu xat lool la ci nangu dëgg ak dëgg nu mu mënti mel xol ba day xat lool ba du ko mën a nangu ak dëgg gi lu mu leer leer nag ak dëgg gi lu mu wasaaroo wasaaroo ak dëgg gi lu mu yaatu yaatu ak dëgg gi lu mu firndewu firndewu dënn ba day xat lool ci nangu ko gis nga ko ma ndax xol ba du mën a nangu dëgg dugg ca day lànk looloo nag mu misaalee ko ka annama yasaadu fi sama comme koo xam ni mu nga yéeg jëm kaw asamaan seetal misaal mi loo gën a dem ci kaw oxygène di gën a néew gis nga moo tax boo yéeg ci kaw ci altitude danga nga toll foo xam ni dangay am jafe-jafe oxygène gis nga bu boobaa pression bi nekk ci sa dënn pression bi nekk ci sa poumon yi ni muy diisee ni muy xate xoolal na mu ko misaale